الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين لول موي كيغا خامتاني سي دافا دون dafa doon جوجو مو خام غور غالا ولا جيجين ني نين لين دور تيميرير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 Euh, lañ ca wax muy ma dem ca borom ne ko maa la waxoon nangam baal ma bu fekke japp nga ne lolou du yak sama diggante ak mom du ko lañ ca tek sanction yañ ca tek day lo xamni suma ko defé sama diggante ak sama borom rek la ak ak lolou suma aji wul makka nonu suma ma joxe asaka nonu yoyep ay bakkar la yo xamni man nga ko bañ def ba nopi ñi diko réparer te kenn du ko yalla mo def bi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 euh, importante par rapport à ce qui se passe euh, lors de la science islamique euh, à Guédé. Et donc, si aussi tel n'est pas le cas, si seulement ils ont un problème avec l'islam, ma réponse serait ils sont en train de, violer le principe fondamental, fondament, le principe de, la laïcité, alors qu'eux, ils se cachent derrière la, laïcité. Donc, le deuxième point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 agna ci bi ku yor sa diine nga melni ku ngëpp ab manam eh, aw xal dafa mel lool rek moo feñ moy amna ño xani war nañoo bayyi xel ni yawmul hisab amna te ëlëk amna. te lepp loy wax lo xamanteni gëmoko ay interpersonnel personnel tax nga koy wax tax nga attaqué diine na nga xam ni sa dig ak yalla subhanahu wa taala ëlëk kon loolu lañ ci wax di ñaanal ñepp jamm ak xewal di sante serigne muntaha mi nga xamanteni ni ni yi jité yone mourid ci lepp ci ndigalam ak ndigalu serigne Omar mi nga xam moy khalifa serigne sëriñ Buso di ñaan yàlla subhaana xam bu dëgëral leen dool leen tawfiix ba naa li ñu naan fi ci dëkk bi rek ñu ñu àggale ko ci anam yu gaa wa ngir ngeen di jot vidéo yi am solo yi ci TV da ngay ñu bind sabonné ba nga ci bi. La ilaha illallah daaru Bayré Fall TV, la première scène qui valorise la vie et l'œuvre de Mam Cheikh Ibrahim Fall.